laa ilaaha illallaah. jàmm bu amul ak mbaax. laa ilaaha bu duggee ci bàmmeel dana ko rëcc. loo am te amoo mbaax. loo am te amoo ak mbaax. xol bu tilim. ki ñaan. bañante. xol bu sell la yàlla wax de. Allah la ilaha jërëjëf baay booy yal na yàlla sama borom teral leen mun teral leen ndax teral na ko ci teral na ko ceeb teral na ko lépp loo xam ne di jaamu yàlla yaa ngi koy jëfandikoo yal na yàlla sama borom teral leen noonu képp ku suuf ci yéen rek ci saa yore ak ci baatu képp ku sukk ci yéen bu génnee kontaan ci saay rek ci baati képp ku ànd ak ci saay rek ci baati képp ku ngeen àndal mu génn saay rek ci baati yàlla gërëm leen ci biir ak ci biti kanam leen ci biir ak ci biti jàmbaleen ci biir ak ci biti yëkkati ba ca kaw mu jëm saa iram ak ci baatin lépp lu ñu wax wala ñu jëf ko wala ñu xalaat ko wala ñu jëflante ko fu mu mënoon yàlla dëppoo la neex yàlla yàlla ci yàlla gërëm ci saa iram ak ci baatin yàlla bu ñu yàlla jàpp suñ di ji suñ ñàkk solo ji suñ bon ji yàlla bu ñu ko yàlla jàpp yàlla ñu jàppe mbaaxal bi ak sellal bi ak kaweem bi ak kaaraangeem bi saa iram bi ak ci baatin bi gërëm na ci biir ji bi yàlla jàmm ba yaakaar yàlla da koy fay yàlla du fay kenn loo ko defal ba mu di la fay loo defal yàlla ba di la fay lan nga ko defal ba di la fay koo xam ne ni yow moo moo yëkk moo lay yëkkatil sax sa loxo bi moo lay yëkkatil sa tànk bi moo lay nokkil moo lay gisal moo lay jéggal moo lay doxal moo lay jàppal nga naan suma julle ëllëg yow man xiyaam mu fay ma mu dëggal ma àjjana looy soxlaa àjjana bul soxlaa àjjana soxlaal yalla bi borom aljana bu ragal safara ragal yalla bi borom safara safara jam la aljana jam la safara du lore aljana jër du jëriñe yalla moy lore moy jëriñe moy yor moy yor moy yor lor moy yor jëriñ kon niñ bëgg yalla ci mu jëg xam nga aljana da koy naxé ñi gëmul yàlla seen ngëm dëgërul mu naan la waa boo ma jaamoo boo jullee ma xam ma tàbbal la àjjana boo ma moyee ëllëg ma xam ma dugal safara waa léegi xanaa kon yow te yàlla ni àjja yow dara taxul ma bind la lu ma jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa xanaa kon yow bu yàlla tabaxul waa amuloon àjjana amul safara xanaa kon doo ko jaamu te yow jaamu rek moo fi indi kon nan sax ci jaamu gi nan sax ci jaamu yàlla buñ ca bëgg àjjana buñ ragal safara nan ci bëgg yàlla miy nan ci bëgg yàlla miy borom jaam ñi nanu bëgg yàlla miy borom jaam ñi nanu bëgg yàlla miy borom jaam ñi bu ñu bëgg keneen ku dul moom bu ñu ragal keneen ku dul moom bu ñu yaakaar keneen ku ñu jaam kenn ku dul yàlla saa boo ko muy dëgg nag moom dana def lépp dana mu jówal bati ko ragal la waaye nag bu fekkee da ngaa ragal keneen ku dul yàlla yàlla day def ci sa xol bi ak ak oyof lu yëngu nga tiit Bamba nee fa ay suma taxaf ila akal ahat yaa xaw fa ku boo ragalee yàlla te mu dëgg lépp ragal kon nag jërë ngeen jëf yal na yàlla gërëm leen sëñ Pape ñaan naa yemale foofu kàddu gi sonn naa te xam naa jombur ngoon bi danaa soxlawaat sànni ay kàddu bu suma gan yi ñëwee kon maa ngi leen di njaaraamaan sëñ Modou jërë ngeen jëf